waaw mais Aba. mais maa ngi lay ziar. waaw maa ngi sant ni bu wér. mbaa mu ngi dox. waaye sant yàlla bu wér. yëpp a ngi dox. waaw waaw waaw waaw waaw. wax ko mu pour ñu ko maam <laughs> ay yàlla mi nu sàkk waa li ba jàmm la. maam ci micro bi waaw waaw léegi non non non non ni nga ko ëlbatee baax na. Euh, léegi nu waxtaan euh, tey da ngay yoo présenté wu ma bàyyi la nga toog ba naan say kafe ba noppi. waaw ñu soog dugg ci waxtaan wi. loolu mën naa salaamaaleykum. maaleykum salaam yow yaay kan. man maay mamran mhm. bàyyi seex yi mhm. waaw loolu dafa leer dëkk caare sur mer juddoo yëmbal mhm. waaw di xaritu Cheikh Galo Thiaw Laay waaw loolu xanaa <laughs> bu ma ko waxee euh, loolu war naa mën a nekk lu leer nañ mu leer waa yëmbal waaw kon su euh, mamran min bëgg xam moo war a nekk tey jii ci rajo bi jàkkaarloog Aba doom yaay ndengeen waaw loolu dafa leer léegi fi ñu toll nii yéegi fi ñu toll nii audio yi ojo yi nga xam ni ci réew mi mu ngi ciy tas. waaw audio yi nga xam ni moo moo lëmbe réew mi fi ñu toll nii. Mhm. donc da nga ñuy wax histoire bi nu mu dikkee naka la la loolu commencé ba ngay def ay ojo ba ba mu tas ci réew mi ba ñëpp bëgg la. waaw xam nga aba ah, man damaa nekk nit koo xamante ne nii yàlla dafa dogal ma bu ma nekkee caare yi doon nit koo xamee lii jaaxalul waa caara yi mm-hmm. ñoom ñu ngi may dégg mm-hmm. lii jaaxalul caara yi gëm ma juge mm-hmm. parce que dëkk la boo xamante ne ñëpp a neex caara <laughs> yi dëgg la de ah, a dëgg la ah, di ah, Ablaye mii toog kenn Ablaye Mbaye mii <laughs> dëgg la Ablaye <laughs> Ablaye kenn day moom Ablaye xam nga moom laa àndaloon nii añ muy raxasu paa bi ne ma kookuy sangu kan la day raxasu Ablaye bi añoobe moom bi mu amee 10 ans lañ ko yóbbu añoobe waaw fa la nekk ba yàlla def ni mu nekk nit koo xam ne nit ku baax añoobe la yaroo. léegi neen de ay yàlla mi nu sàkkali ba jàmm la. léegi euh, da nga ànd ak Ablaye Mbaye nga ni muy raxasu paa bi laaj. waaw damay ànd ak moom muy raxasu paa ne kookuy ra ku biir bi ne di sangu ma ne ko day raxasu. ay yàlla mi nu sàkk neen de ay. sama gars yi. ayca ma jëlaat ayca xaaral ma jëlaat euh, ki nga xam ni euh, moom mooy euh, Membrane dafa mel ni dama leen fekkoon ngeen nekk seen yitte de bu ngeen xasee dugg ci studio bi heure bu ne mën naa yéene bett bu dee bu ngeen wax na ngeen wax jàmm heure bu ne mën naa yéene bett <laughs> Membrane. waaw looy naan noonu. loolu ñu naan café. waaw oh, ok defar café gi café boobu la <laughs> ok léegi ah. Membrane fi mu jaar dafa mel ni sa histoire sa jaar-jaar bokk na ci mën a lool. waaw waaw loolu yàlla dogal na ko nag. mais mu mel ni comme dañ laa tere. waaw dañ ma ko tere parce que euh, ñi ma doon crocheté ñuy dugg ci ay këri jàmbur ñu leen yuuxoo sàcce yi ma dem ba ñu def réunion police bi woo ma ne ma arrêtéel football yi parce que ki ma mujjee crocheté diwlin ji bu tàngoon rek musiba am. ok ok ok loolu seen koñ lay xewee. waaw suñu koñ waaw fa lay xewee. kii euh, bopp koñ xanaa koñ yi du ay koñ ñu am ay. terrain am ay camp ak yooyu ba nit nga war koo crocheté mu dugg ci kër ak yooyu. waa Aba xam nga euh, dama dama ñëw ci émission bi dëggantaan te bëgguma fee wax lenn loo xam ne waa Caaray ngi may déglu. Mm-hmm. man euh, ñi may wax nii tom foofu la jour bu mag la woon. waaw nekkoon yi bi ma ko crocheté kër Baay Baara la dugg. bi mu ci kër gi paa bi ne sàccee maa daw duggaat ci kër gi ne leen sàccul maa ko fi maa korosete mu <laughs> ah aba ah, ah, bul werante <laughs> bul werante doo werante parce que ah. euh, waa yëmbal yëpp ngi may déglu donc am na ay SMS yoo xam ni waaw euh, dañu ma koy envoyé euh, pour ma la koy laaj dina bokk ci ba nga demee di wuti carte d'identité xam nga tamit loolu faaw ñu waxtaane ko aba ku jaar foofu kan moo jaar foofu non non man sax dama xam numéro yi mais <laughs> non non am nañ sama numéro ñoom ñoo may envoyé naan ma aba eh, eh, eh, yow laajal maam hmm. daan euh, hmm. euh, bi ma demee di uti carte d'identité billaahi waaw waaw bi ma demee di uti carte dama ñëw fekk police bi xam nga ñu ñu téye noonu am euh, fi leen di garde hmm. léegi bi ma ñëwee maa ngi romba yi man yàlla dogal na man daa ñemeñu ma leen. ma ñëw fekk waa ji romb ma ma romb ko mu naa maan grand doom may ma jënd ndox ah grand ma ne leen ay yéen dimbali leen ma baloon ñoo yaakaar dama leen a xam <laughs> ah waaye dimbali leen ma ma ñëw fekk commissaire bi tëgg nii di bind ma jox naa ne salaamaaleykum. waa ji mu sigg naa ne ma dama ne ko sama ka mu ne ma lëndi <laughs> gis nga awaa bi mu nee bi mu nee lëndi maa nga ca ginnaaw a ah, dégg mu naa lëndi muy aw xam nga ab saal boo defee buri ba mu ne <laughs> ah non non nga ma ne yàlla mi nu sàkk mbaa ah, bu dee man doon ma tëj de. lii ah, waaw euh, dama ko wax fenn mais dafa mel ni histoire bi ñëpp a ko dund. parce que yenn saa yi nga dem ci ay euh, ci ay fekk ay homme de tenue. mais dañuy jàpp jàpp goo xam ne duñ la <laughs> la bàyyi ba jeexal. non xaaruma dañ lay dagg xaaruma <laughs> dëgg la xaaruma damay wax rek ma ma demal ba lëndi. maa <laughs> nga ca porte ba déggal de mu naa demal ba ma ne ko maa nga sunu kër bi ma njëkk a yem mu naa ma ne ko poste ma lii ma ne ko foo jëm rek fa laa jëm. mais abaa lu mel noonu kenn na euh, euh, ci kanam ñu gën a dugg ci waxtaan bi nii dama doon nuyoonte ak yow rek. waaw nuyoo waaw mais ma ma animé tuuti ba ci kanam. loolu ñu dugg ci waxtaan bi loolu mën naa ne xaj na fa. léegi léegi dag may wax wax euh, ñi nga xam ne ñoom nga bëgg a nuyu nga nuyu leen ñëpp ndax àdduna yëpp a ngi lay déglu waaw ah. waaw abaa xam nga man dama nekk nit boo xam ne maamaraanu la guddi yi ñu toll mhm, mhm. man euh, lii doon na loo xam ne dama koy def rek te bégal ci doomu aadama te yàlla rek tax. Mhm. parce que mhm. fu nekk nii daf ma fay woowee di wax euh, mbégte bi muy am ci man. Mhm. ay Kolda Ourossogui Fouta oto maa ngi mbër yi di di di di gërëm. waaw <laughs> parce que bu may gërëm. <laughs> non non ah waaw bu ma toogee fii di gërëm du ma fi jug. waaye nag damay jiital ñi nga xamante ne nii tey ñooy waa Caaray Géej. parce que yi dekku na dëkk boo xam ne man dama koo bëgg. ñu ngi lay déglu donc waaw donc ne yëmbal laa juddoo. mais Caaray dama koo bëgg. parce que man dama am loo xamante ne nii Aba. Euh, Caaray xale yi mag ndaw ñëpp dañ ma bëgg Mm-hmm. yàlla xam na ko. Mm-hmm. may gërëm waa seeneen nga ma jugee di gërëm quartier ya fa nekk ñëpp. ah kenn ku ci nekk rek Mamran mu lay béggee bu baax a baax a baax. xam nga Mamran lan moo tax tey problème dina fi am. waaw parce que yaa waa yëmbal ak waa caaro yi ñëpp a ngi déglu. waaw te ñiy déglu dañ laa xam. waaw kii kilifa la. Mm-hmm. mais envoyé na ma message na ma laajal Mamran bi biir bi yëngoo. Oh. Euh, mu dajeeg euh, ab xaritam euh, li ko xarit bi doon laaj ak moom li mu tontu xarit bi donc loolu du ma laaj léegi dama lay bàyyi nga noppalu ba ci kanam. mais abaa ñi ma xam ñoo ñoo lay message de <laughs> message ñi ma xam da leen da ngay seen message eh, mënu ma ko loolu ah non non arrêté seen i message xam xam la loolu ku ma xam la te ba pare am na beneen affaire bu ci am loolu bu dul Mamadou Sylla dama jaaxal sama grand bi du Mamadou Sylla non non <laughs> ah Serigne Mbène la moo jaar foofu <laughs> ba pare maam ran na ma ba pare waa Super Étoile mhm. ñoom ñëpp yeewu waaw di déglu ak Youssou Ndour ak ñoom Mbaye Guèye Faye ak ñoom ñëpp. waaw parce que son bi nga xam ne ñoom dañ ci ñoom dañ ci sonn. waaw ñu wër ci adduna ba dem ci fu ga nga yàq ko. loolu métti na leen mais ci kanam loolu dinañ ci ñëw métti na leen trop. waaw yow nañ <laughs> waaw loolu dem ba la Aba. waaw jàng ma taar la ay waay ku ma Fatim Diop. nu ma ko woyee rek naka Youssou moom na jël woyam ma jël sama woy rek. <laughs> waaw na ku ne jël woyam. ah na jël woyam man maa woy noonu. Aba <laughs> bàyyi rey. laajal Mamran bi mu ñëwee premier janvier yëmbal di seet si xale bu jigéen bi fekk ko fa ki ko wax nañu dem kër sëñ ceex <laughs> lan la ko wax xam nga tamit lii lépp <laughs> xam nga lii lépp mën na fi bañ a xaj <laughs> waaye ci kanam rek ma dugg ak Mamran ci waxtaan wi li ngeen ma ni laaj ko Mamran yëpp dinaa ko laaj bu soobee yàlla yéen na seen xel dal yéen na seen xel dal rek li ngeen ma wax laaj ko yëpp naa ko yaa ngi dégg yaa ngi waaw sama yaay ja ca Lugaloo yaa ngi fuural ñu jël paan bi teg ci digg ah, kii bi ah booba réew mi neex na mais Mamran lan moo daan xew ci temps yooyu parce que ci temps yooyu moo nekkoon temps bi réew mi neex waaw xam nga réew mi Abba mhm. ah, toll woon na ñëpp nekkoon ci ci ci dund boo xamee da nga ko daan yëg booba kër yi neex na kër yi melul nii mhm. booba booba salimtoo amoon boo déggee salimtoo xam ne añ pare na oh. waaw booba booba booba réew mi mel nii booba réew mel nii boo déggee salim doo di maalaa daa ina yàlla man naan daa gina yàlla man daan daan booba booy ñëw fekkaañ <laughs> bi ta ay aba bay léegi maam ran bàyyi ma waay danoo sonna léegi léegi léegi euh, maam ran fii toll ni réew mi yàqu ca temps boobu waaw dañ daan lekk ba yóbbu ñamu mbaam ah booba booba boo ñëwee géej li may wax nii képp ku nekk ci caare yi xam na li may wax booba boo ñëwee di sangu ji da ngay puus ceeb bi di doog a mën a fubal boobo booba booba booba oh, ñamu mbaam am na ci réew mi waaw booba da ñëw fekk tefes gi ah, yàqu yaxeet ak ceeb waaye léegi njoga ñëw leen ñu njoganal abaat foo ko déggati wax ma ko a ah, na ñi ñu danoo añ bay njoganal ñu danoo sonn xanaa bala ngaa <laughs> bala ngaa njoganal da ngay añ <laughs> dëgg la de ah. mais mais maam naan tey bu ñu nekkee ci añ mhm. euh, nit ñi am problème mu ceeb ñii mënatuñoo togg ceeb mag ñu daan togg ceeb léegi toggatuñu ay mag lañu xale yi di togg ceeb nañu war a tegee ceeb bi xamatuñ ko fa nu war a sóoree xamatuñ ko. ndeysaan nañuy duggee sax xamatuñ ko moom daan. xam nga abaa yàqu xam nga abaa dafa am loo xamee ceeb. Ah, mu ngay defaroo ca ndugg ma. Hmm. ah xam nga léeg-léeg nga romb nit mu jóge marché da ngay xam ne kii tey lay naw fër. ah, ah ndugg mi mu yor ku ko bàyyi ak sagom rek dina la toggal ceeb boo xamee ndugg ndugg moo yor ak ceeb dem marché da ngay teel a jug boo daa boo teelee jug boo demee di nga fekk carotte ju baax ji ñambi ju baax ji di ci mën a am waaye boo tëddee ba naaj wi la nga jug carotte ji mel ni ay saan nga fay fekk abaa li xam naa ko dëgg la am na a ah, jigéen ñoo xam ne danoo tayal waaw danoo tayal dañuy tëdd ba naaj wi jam leen ñuy doog a jug boo ko defee boo demee fekk fa carotte non non lu baax li dem na moo ah, moo tax nga ceeb yoo xamee ah, carotte ji day lax boo ko laalee sax da mel ni ko sa sa yaram sax du ko nangu waaw a ñam day fere day fere. xam waaw day fere mais bu ñu toggee ba yekk ceeb bi. waaw xam nga euh, euh, bu nu musaan a toll ci sóor. ba pare maam raxan xale yi dañuy togg di audio di togg di génn di wax lu seen yoon nekkul. waa moo tax kenn euh, kenn seesetul. boo daa mënoo nelaw añ bu nu ay wax boo ta boo añee ba pare doo doo doo mënoo mënoo nelaw. añ bu nu toggee ay wax boo nooy nelawee abaa bàyyi ma abaa li may xam naa ka da ngay da ngay añ ba pare topp di wax yow mi doon lekk ceeb bi sax da ngay wax rek. parce que dan kaa togg ay wax sànni oui oui sànni ca li muy waxal xamoo ñan la ah waay kenn da daa mën a sees aba ah, ma ñun danoo euh, koy togg di ay yàlla mi nu sàkk ba jàmm la waa ma ne euh, euh, añ am foofu waaw yow ñun danoo añ mu pareegul nga ne añ am foofu léegi te pareeguñu ay pareeguñu añ suba xañ ngay am foofu man na suba kanja bu pareegul tiir ji demee kooka ci naa moom ngay am foofu te dara baaxu ci ñun dañoo sonn neen de neen de léegi maam naan ba ci nuyoo gi dinañ ci waaye ca waaye ca kanam ak kanam léegi waaw rek eh maam naan xaaral rek xaaral ci euh, léegi ñoom ci togg gi nga xam moom la ñuy togg ba war a yàq maam naan problème baa ngi ci yàq gi waaw xam nga xam nga xam nga aba bala ñoo yàq xam nga mag ñi euh, Ablaye may ma tuuti ah Ablaye doo ma bàyyi Ablaye Mbaye mi doo leen wax. ñu may ma dugg Ablaye bàyyi jàmbur bi. ah Ablaye mi dama bàyyi ci ba jàmm la waaw ñu ngi ci ayca xam nga Ablaye moom ndeysaan boo waxee ci añ day kontaan ndax moom ni muy def ceeb kii buy añ day mel ni kuy fayee ko bor barki Seydina Limaamu ah non non man xam naa li ma kii bu may ànd ak moom fenn dama koy daggal ticket kii bu nu bokkee ginaar léeg-léeg dama yëkk juróomi junni jox ko ka nekk lii maa la ko jox rek. mu bañ a nga bàyyi màgg ginaar <laughs> mais eh, eh maam daan ginaar di jar 5000 ñu mën ko toog ci junni nga bëgg ko jox juróomi junni. da kay jar da kay jar. barke ni muy da ngay saw fit lay yóbbu. waaye bàyyi ma ah, waaw kii day raxasu ñu yàggal kuy sang. waaye léegi yow fi ñu toll nii bu ñu yàkkee fi ñu toll foofu lañ toll. waaw bu ñu xam nga bala ñoo yàkk ci sóor mag ñi dañ daan jël bisaab. Mhm. jël géej. Mhm. laxas ka ji bàyyi ka mu diig mhm. waaw boobu boo demee ndar Penda Mbaye mi ngay tën nii li tax ma aw turam ah, siiw ci ceeb loolu du ay caaxaan xam nga loolu a ah, daa du caaxaan waaw mag ña boobu bu mu sóoree réew mi da koy yëg ñëpp a yëg ne a ah, réew mi sóor nan waaw booba ceeb xeeñawul nii gaaw la foro waaye ceeb léegi gaaw naa forox aba 6 heures mu forox ñun dañoo sonn <laughs> ñoom la ñuy def ci ceeb yi teppi rek tef bu njëkkoon na ngay dëbb léegi dañuy teppi rek teppi rek dangay teppi rek <laughs> ah yow ñun dañoo sonn aba da ngay teppi rek léegi dañuy teppi rek ay teppi ah da ngaa dégg ci gën na ku ñuy dëbba nii ci ah ci waañ. Mawran. may ma rek ma noppalu ah après ñu yeggali fan la ñuy yem ci teppi taf la ñuy yem. waaw si teppi rek day teppi rek sut. loolu nee na ma dimbali ko rek Mawran noppi ba mu faj maladie ba noppi parce que li muy def àndut ak ay reetaan wóorul. <laughs> waa dëggal loolu ndeysaan waaw waaw waa ñi tëdd ci hôpital yëpp mm-hmm, abaa mm-hmm. neen yàlla may wér mm-hmm, ndax man euh, audio yi may def da cee am ay paracetamol ay euh, waaw waaw waaw waaw audio bu ci nekk ak li muy fi muy yóbbu nit waaw ndax loolu li ma ci jublu mooy ndeysaan stress euh, bi dafa bari abaa abaa réew mi fi ñu toll nii ah ku mën a bëggal sa do ah, sa morom rek na nga ko bëggal. mais Mame Rane fan la euh, fan la idée bi euh, mu ñëwee nga war a toog yow kese euh, di def ay ojo muy neex nit ñi da nga mës a def benn audio mu neex nit ñi rëcc wala da nga toog rek am idée wu damay def ay audio di ko bàyyi noonu. waaw man xam nga Aba dama nekk benn groupe bu naan no stress Pikine parce que man sama xarit yi ñu ci bëri danoo féete Pikine lu bari ñoo mhm. moo ngi may dégg may wax Massamba Bey Aji Bey mhm. ñoom Papa Jibi Seck ni ngeen classé baaxul mhm, waaw loolu ñooñu Pikine lan dëkk man yàlla dafa dogal man nekk nit koo xamee fu ma dem rek damay mel ni fa laa juddoo ma ñëw Pikine nag di fréquenté ànd ak Massamba Bey ñu ñëw bëgg ma waa Pikine waaw man damaa bëgg Pikine gox bi ma bëgg la yàlla xam na ko euh, ma nekk kër goo xamante ne nag ñoom danoo yaatal mooy kër ñoom Massamba Bey ñoom Aji Bey ñoom Raxu ñoom Ousmane xam nga na ni man saa su ma toogee ak ñoom rek euh, damay am di di xalaat ci ñoom lu bari euh, di muy mbégte sama diggante ak ñoom. Mhm. audio yi nag comme boo ma ci laajee day doon loo xamante ne ni maanaam man nii laa mel caara yi ga ma jugee ñoom lii bettu leen. Mhm. waa lii du leen bett parce que ñoom xam nañ Mame Rane Matar mii sama rakk la maa yar xam na moom bu baax. moom moom mii kenn nag amul kenn ku te dëkk caara yi man maam miis amul. man ñi ma dëkkal sax mënuñu ma am miis. ci neex gi waaw loolu laa yàlla moo ko def. yàllaay maye waaw yàlla moo def loolu. Mm-hmm. parce que man sama yaay bi ma jur sax daf may reetaan. ah kon ci groupe bi euh, nga daan bàyyi ay audio sa audio yi di rëcc ci groupe bi. waaw non bari na parce que man ba may wax ay góor ñi bu njëkkoon bu ñuy saw xër ngay déggal léegi ci ciw. loolu <laughs> dafa yàgg ah loolu. Ah, loolu dafa yàgg man ba ma koy wax loolu dafa yàgg. parce que audio boobu euh, yaakaar naa ne bu ma juumul dafa bokk ci yi njëkk. waaw waaw waaw waaw parce que boobu bu yàgg bu góor ñi di ah waaw waaw xam nga na am na audio bu ma doon wax naa may nañ leen ci koor gi xam nga ah, booba 6 ah, heures 7 heures ba 6 heures. waaw bu ci ceeb ñorul ah, ci yéen la. waaw may nañ leen temps boobu dafa yàgg. waaw waaw boobu boobu loolu yàgg na audio yooyu yàgg na ak a ak ak kii audio yu bari yoo xamee man li ma def ci audio dafa bari. léegi fi ñu toll nii dañoo nekk ci heure pause euh, dañuy dem ci bay ay bulletin cinq minutes rek ñu ñëw daal di yeggali mais bul fàtte ni ñu ngi woon ci teppi booy feccatunu booy a ah, mu ne daa mel léegi pecc mi dafa Aba. Ah, maam daan lii dafa mel da nga daan. Ah, da ngay mel ni kuy taxaw ci xal. barki bàyyi lay <laughs> da ngay jéggi rek di dem. <laughs> tas gin tas gin <laughs> la. ah waaw waaw booy feccatuñu boobu lu am fecc. nga ne lii bi koy da nga a. loo am fecc da mel ni kuy taxaw ci xal barki yonent bi. tas gin tas gin tas gin ah yow yàlla mi nu sàkk Aba a danoo sonn ana ngeen. dafa mel ni. Euh, dafa mel ni ñi la bëgg dañoo mën dara parce que ay jiidi CSB laay gis ñoom Maam Ndiaye ñu naan Euh, damaa bëgg maam ñoom le transitaire petit ah. ñun ñoo lay eh, bëgg. Eh, eh, maam Rane dafa mel ni. Ah, waaw ah, ah, ñoo mën dara. waaw ñooñu nan waaw nan jéem dara. nan jéem dara xam nga ak jéem dara bokkul. waaw waaw abaa ñooñu nan jéem dara. te yàlla ah bu ñu mënee dara ba def. waaw nanu jéem dara <laughs> nan jéem dara yàlla baax na. léegi. léegi fañ nekkoon. waaw euh, dañu fay dellu euh, bu la neexee ci bu lay neex fañ nekkoon lañuy dellu mooy. teppi taf xale yi dootuñu dëbb. waaw dëbbatuñu. dañuy teppi taf waaw rek taf. Mhm. danoo taayal ndax xam nga soble nga nga nga nga reseté ko ca marché ba ngelaw li jàpp ko day ah day sàlli bala ngaa ñëw ci kër gi moo tax ah, waaw day ah non day la ñoom lépp ca marché ba lañ koy bëgg a defee mm. aba réew mi woon nii démb mag ñi danoo ah, sawaroon ambiance kër amatul ah, boo defee dara yaa ngi xalaat sama yaay damay dóor saa baay yooyu moo amoon waaye réew kenn sañatul laal doomi jàmbur boo laalee doomi jàmbur dootoo ko dolli da ngay bokk ak nit ki ndey ak bàyyi sax sañoo laal doomam waaye li ngay dëbb ci kaw kii. waaw waaw xam nga xam nga àddina bu fekkee ne yaa ngi nekk ci kër ba pare yow ah, seeni doom duñu leen a gis ngeen di toog duñu xam li ngeen bokk. dëgg la nit ki boo bokkee ak moom day jiitu ci ah, ci ci ñi ñi jaboote. dëgg la mooy kilifa yi. parce que bu fekkee ne da ngaa am sax njaboot nga beru man ma beru même bu nu bokkee ndey ak baay sax maanaam ah, suñuy doom duñu xam leen bokk bu njëkkoon boo duggee ci kër da ngay xam boroom kër gi. Mm-hmm. paa bi mhm. ngay fekk mu toog ak maire bi nga xam ne ah kilifa yaa ngi nii. Mhm. waaye mhm. léegi loo am am kilifa léegi kilifa yi bari naa ba barki loo am am kilifa. Ah, kilifa dafa mel ni maam daan bu ma la nga waxee ni dafa mel ni kilifa lu ñuy jaay la. waa léegi xam nga boo boo déggee ma loo am am kilifa mooy dangay gis ku ñu war a ilif muy ilifaate. ah la muy yor la. waaw ah. ndax dangay gis koo xam ne day ne ci kër man dara rek dootul nangu ku ko ilif. mooy doon kilifa gi. waaw <laughs> te bu njëkkoon ndeysaan mag ñi ah, da ngay yor ñu boole laak la nga yor ilif dëgg la de waaw da nga daan yor ba pare ñu boole ak la nga yor ilif. ay ci 88 628 14 14 heure boo duggee euh, ma boole ci teranga Sénégal nga mën cee ñam mais maam daan tepp taf euh, la nekkoon ci yàq geeg sóor geeg yooyu ñu yeggali. waaw saan abaa xam nga boo déggee ma ne tepp taf mooy bu njëkkoon mag ñi bu ñu duggi jee ba ñëw dañ daaw génn waañu tànk añ bi parewul. dëgg waaye léegi ndeysaan da ngay dem ah, ah, envoyé benn vocal ñëw dëbb ah, suti dara tef <laughs> ah waa may ah, suppa kànja ngay am foofu ah suluxu ngay am foofu. ñëwaat waaw si tippiwaat leneen suti. poobar <laughs> dañ koy tippi. ah <laughs> suppa kànja waaw en cours waaw waaw. yow ñun ñu dañuy añ ah téléphone yi boo ci yoree rek mën ngaa suur mën ngaa suur da ngay gis ñu ngay am foofu. bu la neexee da ngay naanam dox rek añ nga ba pare. dëgg la de lu lu togg dañ la koy sinap. dëgg la de ah réew mi lii kenn nga gis ku yaakaar ni mën naa togg Mhm. togg aw yoon. même bu dee sax mu ngi wax ay maafe en cours ceebu jën en cours. mais bu mee ba yàq rek. Oh, ñu ah, am ceeb ah, xam nga ceeb. Ah, bu nduggama normalé day day fekk nag ceeb loxo xam nga lébu ndeysaan ñoom. toggal leen ab ceeb day xaw a jafe. Mhm, mhm, ndax xam nga mag ñi da dañoo yar ci tëmbal. jën da nga koy tëmbal képp koo gis muy saafu jën mënu la togg déedéet. aw jën da nga koy tëmbal bàyyi mu diig. xam nga suppame boobu ah, su ji ak su ji njëkk ja bokkul. Mm. ñambi ji ak ñambi ji njëkk ja bokkul. abaa mm. maa ngi lay wax loo xam ne damaa bëgg nga déglu. bu eh, ni ma lay dégloo bu dee na xam nga xam nga am na suy caare yoo daan dégg suy caare yi. korot jii fas booy ba man nduggi ah, suñu waakar mos na noon nduggi ba ñëw ma yaakaar daa am xale yu tëdd ci waañ mi ma ne yow xale ñu ne ma korot la booba korot jooju gisatuma ko ma yaakaar ne ah, korot ji xale yu tëdd laa ko tegoon ah booba booba booba réew mi melul ni a ah li ma wax xam naa ko baal sa rey yi li ba jàmm la dëgg la dëgg la ah waaw baax na la bëgguma laa dagg dama bëgg nga yeggali fi nga nekk ah, bu ba waaw ma yaakaar ne da dafa am xale yu tëdd ci waañ wi ma ne eh xale bi tëdd ci waañ wi kan la ñu ne ma doonoon dugg woon ma xool muy carotte ma ne waaw baax na carotte bi <laughs> yàlla mi tiim xam ne tey jii laa lu mel ni kenn du ko mos a gis. Ah léegi léegi ñoom bu ñu yàkkee ba teg ko mënatuñoo togg ndax euh, dañuy saaf jën yi waaw mënatuñoo togg ndax yu bari mais Mame Rane euh, problème bi mooy euh, bu ñu tegee ceeb bi nag ba classé ko nag yow mi war a lekk. waaw est-ce que Mame ki war a lekk ceeb dafa war a xool nu ñu classé ceeb bi. waaw xam nga classement dafa am solo parce que lépp loo xamante ne di jul ñeex waroo kaa teg ci kaw xooñ xam nga xooñ boo ko jëlee takk ci kaw ci kaw. waaw ah, defoo ko ci digg bi bu ko mbooy mi jàppee léeg-léeg nga gis nit di añ bët yu xonqa cuur nga yaakaar ne dañ kaa dóor boobu xooñ mooy def noonu xooñ ah da koy jël tekk ci digg bi jël suu boo jëlee su ah, ah, ñaar yi dañuy jël ñeex mooy suu naajo ak basante ñooñu dañuy dañuy récupérer ñeex ñooñu ngay jël tekk ci ci kaw xooñ ji ñeex mi newoon seen biir mooy bex ci kaw xooñ ji moo bala ngaa ñëw booba mag ñi dañ la daan puusal xam nga aba bàyyi bi ngay def yeggal waaw booba booba mag ñi dañu daan puusal aba ah, réew mi puusal amoon na fi ndax waa ji dafa sukka xale bi place am ji xale bi ah, puusal ka puusal ka mooy def ni xam nga bu mag ñi mu defee nii puusal ka ceeb bi waaw waa ji yëkki ñaar téeméer jox ko ne ko maa ko def ci puus bi xam nga gan du yóotu waaw gan du yóotu gan du yóotu <laughs> dee leen puusal gan yi ñun danoo son na dafa may xale bi waaw ñaar téeméer naka maa ko def ci puus bi parce que man te yóotu abaa ñun danoo sonn ok léegi euh, maam bu ñu toogee ci bool bi avant ñuy lekk ku ci nekk da war a xool euh, tey dafa am yoon boo xam ni boo tegee lii bii légum bii nga ci war a teg légum bi ak bi ñoo war a taqaloo légume bi ak bële parce que ñun mii nañu ceeb te ñu ngi lekk ceeb. waaw waaw xam nga ah, ceeb moom bi mu ñëwee ci réew mi ah, lenn lu ci nekk dafa am kóllëre bu la yàlla boole ak moom boo ñëwee ci ah, ci carotte moom ñam bi familan ñoom mënuñoo taxali ko. ok ok ok naajo ak basante ñoom ay familan kenn gisatu gisatul naajo kenn gisatul. daa foo kay gis foo kay gis ah man xaw ma surga yi ñoo seetul xaw ma nit ñi man lii kenn xamul lan la waa rew mi lii fi ne nan ko wax. a ah, déedéet ñam bi bu njëkkoon booy laal mu lay topp waaye <laughs> léegi ci yaamatoo nga yor ak a paaka. waaye <laughs> non non aba boobu ñam bi ah boobu ruti am na ci réew mi. aba ruti amoon na ci réew mi. dal ko daan jaay mm. da ngaa doxati ba gis ruti. ruti foo ko gis. ah dimbali leen ñun dañoo sonn. ñi am kóllëre mooy euh, légume bii moo war a ànd ak bii. waaw ak ñam bi ñoo war a dendee. basante ak nawe xam nga nawe moom ki ko jaa ki ko bay ku taayel la xaw ma nawe lu ko andi ci réew mi moom. Ah, moom lewet na lool nawe. <laughs> moom nawe moom wax dëgg yàlla moom bayrem bariwul daa ah, déet man day bu àndul ak korot du dem. moom fu mu dem fa foo mu ànd ak korot. Ah. moom nawe kase ah bariwul fan si de. ah nee gannaa nag baax na. baax na waaye man daal ak baaxam lewet na de. xaw ma xaw ma ndox lañ ko jëmbatee xaw ma. da ngay gis ba buñ koy rappee. Mhm. moo carotte la ñuy boole. wax nga dëgg waaw non moom kase man da dem de. wax nga dëgg danaan leen carotte mu ñëw moom boo oowul carotte du dem. parce que moom kase ah, neexul la dem ah, dafa lewet xaw ma ndox lañ ko ba ah, dama yaakaar ne am ndox lañ ko jëmbatee. ok mais yow mais yow léegi dafa am ku teg ceebam yow loo loolu sa yoon a ngi ci wala sa yoon a ngi nekk ci mais ci groupe bi la. waaw ñu indi ceeb bi mais loolu dafa indi coow lu bari ci réew mi. papa ji bi sekk la ñoom danoo jum ci classement bi ndax danoo jël xooñ ji tegal ka ca kaw ma ne ko da ngeen a jum papa ji bi da ngeen a jum. papa ji bi sekk da ngeen a jum pour ngeen tege ah, ah, xooñ da koy teg ci digg bi jël su xam nga su day jëlam ñeex. waaw ah, su bokk na ci li nga xam ne day récupérer ñeex moom day récupérer léegi ñeex mi newoon ci kaw su ji day wàcc ci kaw xooñ ji mu bexi li may wax xam naa ko mag ñi man maa déglu xam li ma wax ah waaw parce que boo fekkee ne da jël xooñ ji teg ci kaw la tànk ah, mu nga nga fay àgg ngelaw lu bu ko ëppee day wow bu woowee waaw ah, doo ko mën a jëfandikoo looloo tax nga gis nit di añ ba pare bëti xonk tuy waaw eh, ah non non li may wax xam naa ko avant may laaj ah may laaj eh, pour lan eh, sooy wax ah, loolu pour lan la ah loolu dañuy demba loolu demba la loolu demba la <laughs> ma waxi aba ah, bàyyi li ngay def <laughs> day loolu xam nga démb dafa sori foofu nga yóotu ko léegi léegi euh, maam daan fi ñu toll nii par étape la ñuy dem mhm. euh, dama yaakaar bu ñu jeexalee benn étape rek mën ñoo xool son après ñu ñëwaat waaw loolu mën naa ne xaj na fa mais euh, dafa am loo xam ne il nga def ci benn kii rek nga bañ cee yàgg nga tënk ñu dem mhm. mooy ba nga ñëwee <laughs> sa kii bi yëngatu waaw da àggalil rek comme ñëw naa ba ci rajo bi moom bu waaw mooy bi sa biir bii daw nga dajeeg sab xarit mu bëgg laa fàttali yoo xam ni euh, kii loolu noo euh, euh, <laughs> waaw boo boo moom bu di xonka ba kenn du ñaxatooy xi bàyyi ko mu dem biir bi day daw. loolu ah xam nga man dama nit nekk nit koo xamee fu ma jaar maam raan maam raan ma am benn jour ma dajeeg sama benn copain. la waa waa li muy wax. bayre baaxul waa li muy booba te te booba maa ngi amee biir bëgg ñibbi mu téye ma waaye ranti loo ne yow ndax affaire yow sax ma ne ka waaw xam nga koo daan waxal muy wax te waxatul sama sama bëti naan mat mat mat mat mat ma ne ko bàyyi ma ma dem te yàlla tax mu nar maa yenu ma ne ko boo ma yenoo ba am teg ma ay waay teg ma teg ma xanaa xamoon ne <laughs> ma ñëw ba ci raay bi taxaw mënatumaa dem ma ne ay man yàlla mu sàkk ay ku may ba ma ay kan moo may ba ma te yàlla tax. jiili nga joxe ma membrane portable boo xam ne moom ci lay audiowe ah membrane. boo ko waxee boo ko waxee ah, ndeysaan ah, ku dem ci téere gis lii nga wax nii lu leer nañ la. Ah. dëgg gu wér. ndax bi ma yor nii sax wax dëgg yàlla daa jot mu am rakk nag. <laughs> waaw ah, jot na moom rakk de <laughs> ah, waaw waaw léegi damaa bëgg man daal yi baax yi ma yi baax ñi ma am te te ñoom ñëpp di ma envoyé message naan ma maam daan ak ñuy rey waaw damaa bëgg ñoom it euh, damaa bëgg ñu gaañ la ndeysaan nu rey la yow it ba nga dee waaw ndeysaan ñoom sama ñoom yaay Assou Ndiaye ñëpp réew mépp réew mépp a ngi gaañu ndeysaan ndeysaan addina addina noonu la abaa xam nga yow da ngaa doon nit ku baax nag wax dëgg yàlla wallaahi wallaahi ndax euh, lii nii dafa doon loo xam ne am na solo yow da nekk nit koo xam ne ba nga saw santam moom moom ca laa daanoo no stress <laughs> eh, waaw no eh, stress eh, waaw noonu noonu nga non non stress nga sant <laughs> réew yi mënatoo see sant leen loolu loolu. <laughs> léegi waaw euh, Mamran euh, problème bi xale yi am mooy ñun nan daan amee ay gel waaw bu njëkk ba na mag ña daan euh, daan demee di seetee ak yooyu di doxaan ak yooyu ñun ak nii du benn. xale yi yàq nañ doxaan mi déedéet ba pare problème yi dafa bari yaa ngi wax ne xale daan sawee ak sawum dé yooyu yëpp ay problème la mhm. yoo xam ne peut-être lekk gi ak stress bee ko indi waaw xam nga aba ndoxaan mu njëkk maak ndoxaan mi bokkul booba mhm. jigéen jafe na jafe goo xamee mhm. yée xam nga am na sama audio boo boo mu sax dégg gi dara kii daa daaginta ah, booba booba booba da ngay daa lu ak booba booba réew mi ni aba booba réew mi meloon ni waaw waaw aba bàyyi lii dem ñu àggale lii yàlla mi ni sàkk waaw booba booba booba boo demee ci ak sabar da ngay taxaw ci ndënd ya am na koo xam nee na bi nga ñëwee ba tey nuyoo pour la nuyoo yooyu yow tamit waaw xam nga nuyoo naa sànq nga ne man nan àggali neembe yàlla mi nu sàkk neembe ngeen ca ndoxaan mu njëkk ba ngeen ndoxaan mu njëkk ma ndeysaan booba booba amoon naa fi ah, science boo xamee aba boobu dama koy respecté chaque samedi ma fompa science bi ba mu baax ma téye ko man mën jëli daay man science gis loo ca xam a ah, boo doon a ah, boisson laa lay roose ay boo ko laalee boo ko laalee dama koy denc ba samedi moo yóbbu moom laay wax rek taxaw di la xaar ah booba booba. maam Rane nga ni eh, xam nga bi ñuy bu njëkk ba eh, daaw ñu wax damay doxaan. ñaata ay séance laa lay dóor. waaw ñaata ñaar mburu ñaata boppa am nga ne ñaar eh, ñaari bopp la nga ne benn bi man la benn bi yow <laughs> ah booba amoon loolu amoon ci réew mi <laughs> booba ndoxaan la lu nii léegi ndax ndoxaan loo am ndoxaan. ah loo am doxaan léegi loo am doxaan. loo am doxaan mm, mm. àddina bi daa changé aba. léegi barki sëy naa li baamu. léegi euh, fi ñu toll nii xale yi euh, léegi nu ñuy doxaanee léegi fi ñu toll nii. ah léegi whatsapp ah whatsapp maa ngi kër ga nan daja koñ ba nan daja appartement ba. <laughs> dëgg la whatsapp whatsapp léegi de doxaan loo am différence da ngay doxaan message taf mu dem nga ne ko maa bërës tàngam ah. waaw waaw waaw xam nga àddina euh, aba. ñun da doon ne ci réew moo xamante ne li fi changé dafa bëri. Mm. bu ñu toogee ci rajo bii di ko wax ah duñ fi jug. dëgg la waaw duñ ah duñ fi jug booba booba booba ndeysaan réew mi ak boo demee ci sabar ndeysaan ah, da ngay xinte man daaw moo bëggalul ah, booba a haay haay ñu yoroon tama yi laay topp rek haay haay ji rek ma topp leen rek. booba booba réew mel ni a ah, ci léegi affaire yi léegi moom wax dëgg yàlla li yàqu dafa bëri. piir bëreetul mais fan la problème bi nekk ba bu njëkk ba. Euh, tuur ndox bu ñu daan tuur ndox ngay dégg mu am bruit mais léegi euh, bruit fan la problème bi nekk. xam nga réew boo demee ba la nga doon euh, la nga doon dundee xamatoo ko euh, la lay faj dalay dalay xaw a réer. Hmm. ndax booba booba maa ngi wax chaque jour ne tamaate doom bii bi mu amee. décalaire ñëpp ci leen jàng togg xale yu bëri décalaire mag ñi boo toogee ak ñoom di waxtaan ak ñoom dana la koy wax mhm. booba dekk li reer amoon ci réew mi <laughs> mbaxal mbaxal yi fi amoon diwtiir nga ciy def man naa tafi tarak da nga ciy réer ba yàlla yónnee la jàmm <laughs> booba cere baase amoon na dañ daan jël su mhm. fees ka ci biir booba réew mi mhm. xam nga ñàkk a reer li muy def ci kër nit ñi dama yaakaar ne dañ ka xamul xiif la nit mënta ngoruwaale nga am sa doom naka yoralu ma la reer loolu bu sànkoo yaaka sànk ñoom Fallou Dieng Aline Bay Ndeer waaw euh, sama téléphone bi xam naa Mamran bu planté rek yaa ko xam nga pour nga xam ni kilifa yi %e ñu ngi lay bàyyi xel chaque jour :fra lay bàyyi xel di la euh, di xool li ngay def ak yooyu mais :fra boo bay réagir rek mooy seen xol fees na waaw xol yaa ngi féex fi ñu toll nii Fallou Dieng la Fallou Dieng <laughs> Fallou Dieng waaw Fallou Dieng laa <laughs> waaw moom laa dama ne moo fa woyoon kóllëre waaw nit ñi nag nan delluwaat ci woyam woowu waaw ah waa def loo mën wax loo man xam nga loolu ay problème la yoo xamante ne ni nit ñi ah, war nañ cee bàyyi xel. Mhm. te guddi yi ñu toll ngor mu ngi bëgg a jug ci réew mi nag. waaw mu ngi fi bëgg a jug. Mhm. te nag wax dëgg yàlla ah Sénégal bu ne teraanga ba pare da am ngor. dëgg la waaw nan delloosiwaat xel yi. Mhm. ndax àddina moom doomu aadama ah, li muy nawee nit jikko la nan defaraat suñu jukka yi. abaa loolu dinaa ci ñëw bala maa génn ci rajo bi. bala nga fi génn waaw bala ma fi génn dinaa ñëw. parce que réew mi am na ay jikko yoo xam ne suñuy valeur ñu ngi xaw a perte nag. ok waaw mais euh, tey xale yi comme tey ñun chaque mercredi euh, dañ koy def. Mhm. indi euh, way yi nga xam ne ñoo fi amoon démb. xale yi fekke wuñ ko mag ñi fàtte nañ ko ñu fàttali leen donc yow da nga mës indi benn way woo xam ne ci réew mi peut-être réew ko. waaw Ndiak Matar la. Hmm. non non. waaw bii bii bii foo jàppee falaa ma la bii mooy. bii nga doon way boo jàppee falaa ma ne. buñ demee ba ci biir. waaw mooy indi njàng maxtaar. mooy indi njàng maxtaar gi. ndeysaan waa dégg leen lii ay Youssou Ndour ba ñu la dab te ni aaw rek yaay way de ay yàlla mi nu sàkk lii ba jàmm la ah waa baax na <laughs> waa réew mi waxtaane leen lii. daa mel ni dafa mel ni 31 bi tamit dafa am benn audio boo ci waxoon 31 bi. waaw euh, gars yi bu nuy sooy xam nga damaa dajeeg benn coppe voix vocale moom mu ngi euh, mu ngi commencé une heure jëm deux heures. mooy lan voix vocale ngay jot. <laughs> laay la ma dajeeg benn waaye mu naan allo xam naa voix vocale jot dama ci patoo ma yaakaar day rusi ma ne ah yow àndoo ah, doo yow koo àndal dee nga rey nan la yàgg na <laughs> yow moom yow nga xool foo jaar ndeysaan ndeysaan déggal li lii du njàng mataar de bu ma juumulee aba aba lii du njàng mataar de aba lii du njàng mataar aba yow njàng mataar ku ma faatim njoor mooy ñëw ci kanam de déedéet déedéet du njàng mataar xam naa njàng mataar ñu ci lii bu la ci ñu kaa def xam ma ne bala ñu kaa dab xam cay yuusu neexul a dab yàlla na ko yàlla defal jàmm bu yàggee ci réew mi dey sunu njariñ la de. bu fi gën a yàgg kay day baax ci ñun. réew mi la ana nga ndeysaan woyal na ñëpp génération bépp woyal na leen. moom la dippee l'homme des trois générations. déggal lii. ndeysaan. da nga bëgg mu nekk animateur. yaa ngi dégg. waa dégg leen lii. nee na léegi. waaw léegi yow fi ñu toll nii. yow utal loo ko yow wéef yow utal yow loo ko léegi léegi ni tembe tembe nii. amul ah, amul fit wi est que am na fit wi envoyé ko wéef léegi nii envoyé ko wéef léegi. ah eh Aba eh bàyyi li ngay def. barke sëñ la koy def nii xam naa ko boo ma ko envoyé mën naa ko transféré. ah eh amul fit wi. amul fit wi <laughs> amul fit wi. li <laughs> ma fit wi. ak li ma yore ma yor ci bor. <laughs> kii amul fit woowu. wala Fuuta bi nga xam ne maa ngi ko war ah, li ma ko war a jox ah kii da kaa yëg. ah non tam nag ay dimbal leen nu ngir yàlla damaa bëri bor neen de. dimbal leen ma sama bor dimbali leen ma sama bor yi ma koy faje timjoor ma naan naar ku ma faa timjoor bilaay ndikku ma faa timjoor ilaa ni sàngoo ne mbay ñoo ne jàngi loor yusu walo walo bañ na ku kay tooñoo bañ ngooy looy bañ ngooy bañ ak maa xam njaag mataar neen de neen de de envoyé ma ko man indi indi indi léegi ma teg ko nañ dem ci njàng maxtaar gi. duguma waa Tunjoor. waaw waaw. di laa ne sangu ne ba loor.